mel mel nañu ne ko waaw mu ne xanaa di jotal njàpp ma mooy njàpp njàpp mat ci jamono ya nga xam ne njàpp neexut ndax xëy na ndox daa jafe mbaa jamono ji daa sedd du tere ngay jéem a jàpp njàpp mat ak bari say jéego dem ci jàkka ya ak fexe bay xaar julli balaa ñëw nga xam ne julli boo weesu rek tàmbalee waajal da ca topp léeg-léeg loolu day amee na darajay faandu loolu day faandu nag daraja ju màgg la ndax daa bokk ci xeetu jihaad mooy fa jullit ñi ragalee yéefar ya songe leen fa nga taxaw fa sàmm ko ba dara du fa jaar lor si jullit ña loolu dafa rëy lool mu ne nag li mu wax nii ci di jàpp ci waxtu nga xam ne njàpp neexut te di bari la soqi si jéego jëm ci jàkka ja tey bari la xaar ak julli gannaaw boo jullee genn di xaar ga ca topp di ko waajal ak xaar en loolu taxaw na taxawaayu faandu taxaw na taxawaayu faandu baamu ko baamu ko ñaari yoon ala uxbirukum bima yamxu llahu bihi alxataaya wa yarfaxu bihi darajaat daal di ne isbaaxul wudui xind almakaarihi wa kasratu alxutaa ila almasajidi wa intidaaru salaati bada salaati fa dalikum ribaat fa dalikum ribaat ak hadis ba wax ne ida tawaddaa alxabdu almuslimu aw ilmuminu fa xasala wajhahu xaraja min wajhihi kullu xatiatin nadara ilayha bi xaynihi maha almaai aw maha axiri qatri almaai fa ida xasala yadayhi xaraja min yadayhi kullu xatiatin batashatha yadaahu maha almaai aw maha axiri qatri almaai fa ida xasala rijlayhi xaraja kullu xatiatin mashatha rijlaahu maha almaai aw maha axiri qatri almaai xataa yaxruja naqiyan min addunoobi hadis ba dane ku gëm yàlla bu dee jàpp bu raxasee kanamam ndox may rogalaat day ànd ak ñaawteefam di wàcc mbaa boog mu ne dox ga ca mujj day ànd ak aw ñaawteefam rot daanu ba tey bu demee bay raxas ñaari loxoom lépp lu mas a tooñ ca loxo ya mas koo ngëpp mbaa laal ko ca loxo ya te war ko caa laal muy xeetu ñaawteef buy raxas loxo yi ndox may rogalaat bàyyi ko ca loxo ya day àndaaleeg ñaawteef yooyee di wàcc mbaa boog dox gay mujj wàcc ca raxas loxo ya day ànd ak ñaawteef yooyee su demee bay raxas ay tànkam it muy ñaari tànkam ba tey noonu la wépp ñaawteef bu mas a dox ci ñaari tànkam bu dee ragg tànk yi ñaawteef yi day wàcc ànd ak ndox mi daanu fi suuf mbaa boog nga ne dox kay mujj daanu fa suuf mooy ànd ak ñaawteef yi wàcc bu mujj mu set wecc wecc ci bàkkaar nga xam ne kon daal bu noppee ci njàpp ma day set wecc ci ay bàkkaar ba tey benn hadis nee na te moom muslim moo ko nettali wara waa muslim man tawaddaa fa ahsana alwudaa xarajat xataayaahu min jasadihi xataa taxruja min taxti adaafirihi ku jàpp te rafetal njàpp ma ay ñaaw téefam yépp day génne ci yaramam ba jeex tàkk nga xam ne daal day awe ca ronweya mu mel ne di seetut dara ciy bàkkaar baabun li ab bunt la fi ci cangaay te bëgg a dugg ci cangaayal farata amat toxru ndaal cangaay la foofu wa moom minal janaabati ngir janaaba wa minal xaydati ak ngir mbërëk wan nifaas ak wasin sawaawun way yemoo lañu maanaam cangaayul farata moom niñ koy defee nenn ne lay waral ñu koy def nag moo limu ne janaaba dana ko waral jigéen ju amee li ñuy wax reegal maanaam baax ba mu jeex dana ko waral ba tey jigéen ju amee dereti wasin ba mu jeex dana ko waral nga dolli ca nag ab julit bu génn àdduna ba tey ñu war ko waajal sang ko cangaayul farata ngir jébbal ko boroomam fa in iqtasara ndeem gàttañ al mutatahiru aji sangu ja xalal xusli ci cangaay la doonal wuddoo ci lu dul njàpp ma ajj sa axoo mu doy ko manees naa sangu kese kese wax te doo ci boole leneen man ngaa takk sax ne boo wutee ndox mu baax rek am yéene jox faratay cangaay li fexee fexe rek ba saw yaram fépp daj ba yoo fenn fenn rek dal nay baax lay tax na nga mën a daal jekki-jekki julli mbaa leneen ca ca ngaay loolee te jàppaatoo nag da ngay fexe ba gannaaw ba nga weesoo raxas sawukaay ba gannaaw ba ngay door a raxas cëri njàpp yi te gannaaw ba nga raxas ci cëri njàpp yi jotoo laalaat sawukaay ba loolu mën nga koo takkee ji boo njëkkee jukki li tàmbalee jumbax ba ci bëti woom te bañ a laal foofu nag door a àggale nag mën ngaa tàmbalee ci bopp ba ñëw ba ci jumbax bi dellu àggaliwaat nag te tàmbalee bëti woom yi ba ca cati baaraam ya loolu boo ko defee rek boo ko dee seet gannaaw bi nga defee cëri njàpp yi ba noppi laalaatoo fenn ci sawukaay ba fi waral njàpp mi toj kon nag noonu boo ko defee te defoo luy toj njàpp leneen lu bokkut ak loolu mën ngaa doyloo cangaay loolee kese waaye nag ñi gën ci cangaay mooy ni nga jàngoon ci tasawudu sixaar mooy toftale boobee wa afdalu la gën la ñeel ko an yatawadda mooy mu jàpp bax da an yabda ci gannaaw ba mu jëkkee bi xas jima ci raxas la nga xam ne bi farji yi nekk na ci ab sawukaayam aw jasadihi wala aw yaramam minal aza ci sobe suma yatawadda a topp mu jàpp ubdoo asalaati njàppum julli ñi gën ci cangaayal farata la mooy day njëkk raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tukki jare yi te yéene sunna raxasu cangaay li bu ko defee nag fu ko sobe taq mu daal di koy njëkk dindi nu far tegalee cangaay toftale ba ko sëriñ bi toftale woon ca tasawudu sixaar kon gannaaw bi nga dindee fu la sobe taqoon ci yaram wi saye boo teewlu yéene ji te tàmbalee ca jumbax ba jëm si ci buntu suuf beeg sawukaay bi ba diggante boobu daj mu daal cey teg njàppum benn benn bu noppee njàppum benn benn daal cey teg raxas bopp bi bu nekkee ci bu noppee ci bopp bi teg ca noppum ndeyjoor teg ca noppum càmmooñ teg ca raxas baat beeg ak doq gi teg ci wetu ndeyjoor tàmbalee ca mbagg ma ba wàcc ci bëti woom yi daal cey teg wetu càmmooñ daal ci tàmbalee ci wetu càmmoñ ca mbagg ma ba tey ba ci bëti woom yi kon buy topp wet gi day tàmbalee ca mbagg ma ba wàcc ba ci bëti woom ba li mu mujjee wax nag léegi mooy wetu càmmoñ gi bu ko defee noonu te bañ a fàtte loxub ndeyjoor bi ak loxub càmmoñ bi kat raxasoon na la njàpp moom moom waaye la ca des raxasu ko woon bu mu fàtte loola bu ko defee nag mu dem ci tànkum ndeyjoor nag àggale bëti woom ba ba ca dojar ya ndax rax bu fekkee njàppoon njàpp benn benn kon raxasoon na ba ci dojar ya kon raxasoon na ci njàpp ba ca dajor ya kon nag léegi day àggale tàmbalee bëti woom ba ca dajor ci tànkum dajor ñoo def ko ci tànkum càmmoñ daal jàll na raxas gannaaw ga bu raxasee gannaaw ga mu daal jàll raxas biir ak dënn àggalee ko noonu la ñu waxoon ci tasawudu si xaar ne noonu la ñu gën a taamu ci xeetu nit ñi sangoo fa insha ndeem soob na ko xasala mu raxas rijlay ñaari tànkam wa insha ndeem soob na ko axarahuma mu yeexi leen ila axiri xuslihi ba ci mujjub ca ngaayam la daa wax ne booy njàpp njàpp benn benn bi baax ci tànk yi bu la neex raxas ko léegi fi saasa bañ koo xaari dara loolu nag moo gën nee nañu teel ko raxas fi saasa rek ba ci dojore fa mu war a yem bu la neexee nag yéexee ko boo ko yéexee da ngay bàyyi ba mujj ko dana ko wax léegi su ma yaxam yi sa topp dana nuural yedday ñaari loxoom fi inaay ca ndab la wayer faxahuma te mu leen di yëkkati xayra xaabidin mbir moom du aji ngëpp bisimaa ci ñoom ñaar cey am dara fa yu xalli la te muy xalli la bii maa ci ñoom ñaar usoo la chahari rasihi cosaani kawari boppam boo noppee ci njàppam benn benn raxas bopp bi moo ci topp dañoo bëgg bala ngaa raxas bopp bi nga tooyal say loxo yëngal kawar gi bu baax a baax ndax loolu neeñ baax na ci wàllu wér-yaram ndax dana tax lu mel ne socc mbaa yooyu du ca du la dal dangay jékki-jékki daal ci xëpp ndox rek xanaa njëkk ko tooyal ba noppi baax na ci wàllu fiq gi itam mooy dana tax boo sotti ndox mi mu jàll ba ca biir yëngal ko yëngal xajlu ko dana tax ndox mi yomb jàllale ci biir kon am na njariñ ci yaari wàll yëpp su ma yoxari fu topp dana tàng bi ximaa ci ñoom ñaar alma ndox ma xalaar asihi def ko ci kaw boppam salaasa xarafaat ñetti tàng wala ñetti tàng yin naxaasi lan mbir mu mi aji raxas loxoo ñeel ko bixin na ci ñoom ñetti tàng yin yooyee danaa boo tasaaree kawaru bopp bi ba tooyal ko da nga koy raxas sa ñetti tàng nga def sa ñaari lox ba mu fees nga def ci daal di bés mu génn del defaat beneen muy ñaar del defaat beneen muy ñett loolu nag bu fekkee ne nga yore ab nel mbaa sa kawar bariwut boo ko defee benn rek mu doy bu la neex man jàll ci ñaar ñett boo defee ñaar tam mu doy bu la neex man jàll ci ñetteel bu sa kawar bare itam ba nga xam ñett yi mënu koo dajal mënu koo seet nit faaw nga jàll ba kere muy daj ba seet rek ndax loolu farata la wa tafaalu dana def daalika loolee almaratu jigéen noonu la góor di def waaye jigéen it noonu lay def ñoo yem ci loolu wa tadxasu dana bés chahrar siha kawar boppam nga walay saxaleha déet di ko war xàllu xiqaa siha firi lettam ya maanaam jigéen day bés kawar ga ba ndox ma dugg ca biir bu dee sangu farata waaye du aajowoo muy firi létt ya waaye nag bu dee ci yoonu Maalik moom dañ koo xaw a diisal lool bu fekkee daal léegi léttoo na lu mat ñetti wëñ moom faaw dañuy wax da koy dindi bu dëgëree këng këng itam donte léttuñ ca genn kawar it dañ koy dindi bu fekkee nag dañ koy léttee benn kawar mbaa ñaar maanaam benn wëñ mbaa ñaar laa bëgg a wax te dëgërul moom du aajowoo firi suma yu fiidu topp dana sotti almaa ndox ma xalaa chiq yi ci wetam nga al ay mani kay ndeyjoor suma xalaa chiq yi topp ci wetam nga al ay sari kay càmmoñ leeraloon naa léegi balaa ñëw ci wetu ndeyjoor balaa ñëw ci wetu càmmoñ day njëkkee noppee ci bopp bi da cay teg nopp ndeyjoor teg ca nopp càmmoñ teg ca baat beeg dox gi door a ñëw nag ci wet gi mu wax ko ndeyjoor ak boobu càmmoñ fu ci nekk mu dem ba ci bëti wam ya waaye te dal la ku te muy raggu bi yedde ak yaari loxoom bi isri sabbil maay ci gannaaw sotti ndox ma xataa yaxum ma ba mu matale jasadehoo yaramam wax nee na nag ko defee ngay def ndox mi di bomb rek di bomb ba yaram bi fépp daj nga xam doo bàyyi fenn fenn wamaa loo xam ne chaque sikki sàkk na ay yekkoon ci bu nekkee almaaw ndox ma axadahoo di ko jot min jasadihi ci yaramam xaawa dahoo mu baamu ko bil maay ca ndox ma wa dalakahoo tem raggu ko biyadi ci ci loxoom xataa yu wax yi ba ba mu matale jamiha jasadihi mboolem yaramam wax nee na bu fekkee da ngay sikki sàkk birib sàngam raxas naa ko raxasuma ko te yow sam xel dara sikku ci nekkoo di ko am jax-jaxi kon day aajoo fa ngay sikki sàkk nga yóbbu fa sa ndox day aajoo fa ngay sikki sàkk nga yóbbu fa sa loxo ak ndox boom ko ba mu wóor ne léegi def nga ko bu fekkee day kuy jax-jaxi nag moom nga xam ne bis bu ne mu dal ko benn yoon moom bu sikki sàkka say ba mu bàyyi ko noonu rek te jàll ndax dañuy bañ seytaane yàq am xelam ndax al waswasatu moom day màpp diine ci cosaan la da koy daaneel ci cosaan la da koy yàq wér a wér du koy ënd rek ñu ne ko na ñu ne ko na ko bàyyi kon bu dee sikki sàkk say mu bàyyi ko noonu rek fa muy sikki sàkk du jar laal waaye bu fekkee xelam dara sikku ci moom fu muy sikki sàkk raxas na ko raxasu ko na ko raxas ba mu wóor ne raxas na ko wayu taajo tam yi toppaat xumqa surlati yi xóot xóotu jumba xam ba wa taxta xalq yi ak ron baatam ba wayu xalilu tamuy xalil chahara lihiyati yi kawaru sikkimam ba wa taxta janaax yi ak ron ñaari boqataanam wa bayna aliyatay yi ak diggante yaari njekkikaayam waruf xëy yi ak yaari teppaxoom teppaxo yi mooy fa lupp yi saxe wa taxta rukk ba tey ak ron ñaari batiwoomam wa asaafi rijla yi ak ron ñaari tànkam dalay limal ay béréb yoo xam ne dafa xaw a làqu boo yeexee ndox ma du fa àgg mu njëkkee xóot-xóot jumbax na nga ko teylu bu baax ba toppatoo ko ak ron baat bi ron baat bi dafa am xóot-xóot moom it na nga ko toppatoo bu fàtte ne kawaru sikkim bi moom bu dee ci cangaay mu fatt ak mu ñàkk fatt ci yam faaw dañ ko war a yëngal ba ndox mi dugg ci biir mu kawaru yéen yi ak kawaru mbari bari ak ay mustaas ak boqtaana moom daal boo xasee bay sangu farata moom fu kawar nekk rek dañ ko war a yëngal ba ndox ma jàll ci biir fépp ci yem ci yaram mi bu ma jafaate roon poqtaan yi xam nga poqtaan dafa làqu ndax daa am ab ruq ba jafaat diggante ñaari njekkikaay yi diggante ñaari njekkikaay ab xar-xar la def mu ko fàtte fi lupp yi saxe jëm ci biir bi na ko seetlu baax foofu am na ruq boo xam ne bu ko yeexee du tooy du bu sagre doy ron ron ron bëtiwoom yi ron ñaari bëtiwoom yi foofu am na ab ruq am na ab xóot-xóot ron ñaari tànk ñi mooy ndëggoom da ci am ab xóot-xóot boo xam léeg-léeg sax bu dëggee nii du laal suuf léeg-léeg bu dëggee nii léeg-léeg mooy fii fii léeg-léeg am na ñoo xam ne dañ koo xóollee ba nga xam ne bu ñu tegee fi suuf nii waaw muy biir ndëggu li am na ñoo xam ne bu ñu tegee fi suuf du laal suuf bañ a fàtte testan yeeg siis yi itam ak yooyu yëpp ci la furq bu ne daal na ko nemmi ko mu wóor ko ne ndox ak loxoom àgg na fa fii nag moom daa fi ne sax ron ñaari tànk ñi bi ne wa asaafi rijle yi daa wax ne ci jublu xaq yi bay yi waxur koo bay yi wa taxta xadama yi waaw yóbbaale loolu ba li ma doon wax léegi kon bi ne ron ñaari tànk ñi yóbbaale na ñaari testan yi ak ñaari siis yi ak ron ñaari ndëgg yi mooy foofu moo waxoon léeg-léeg sax ñenn ñi bu ñu tegee seen tànk fi suuf du du laal suuf waaye wax si lu tamit raxas sir jëlee si ñaari tànkam aaxira daalika ci mujjug loolee. yajimaaw dana boole daalika loolee fii ma ci ñoom ñaar li tamaami xuslihi ngir matuk càngaayam la wali tamaami wuduihi ak ngeen matuk njàppam ma in kaana dem nekkoon na ak xara di yeexe xaslahuma seenu raxas ñoom ñaari tànk ya daa wax ne bu fekkee ba ngay njàpp njàppum benn benn ba ak sa ca tànk ya raxasoo ko woon kon na ngay bàyyi rek ba sangoo sangu ba nga xam ne tànk yi dong dong moo ci des su ko defee nag nga tàmbalee tànk ba ca wóom ba daal di koy raxas ba ca baaraam ya nga xam ne kon da nga koy def bopp ndeyjoor ñoo def ko tànkub càmmooñ loola kon mooy àggale sa cangaay àggale it sam jàpp ndegam da nga faa déggoon tànk ya ba ngay jàpp jotoo ko woon a raxas wa yaxdaru tamit wattandiku an ya massa mu laal zakarahu zakaraam fii tadalluki yi ca ragoom nga bi baatini kaf yi ci biir téngam na moytoo def nag luy toj njàpp rawante na di ci gën a yomb muy laal sawukaay ba te laale ko li xong ci téngam mbaa pegg téng yi mbaa li xong ci baaraam yi mbaa li toog li xong ci pegg baaraam yi loolu bu ko ci laalee rek jëmmi cangaay li moom amul lu koy toj waaye njàpp ma daa am lu koy toj fa in faala ndem def na zalika loolee waxad a waxaba te fekk na mu matale tuxarahoo cangaayam la ahaada kon mu baa mu alwado a njàpp na bu fekkee daa sangu ba àggal nag door a laal sawukaay bi nag bañ ne am njàppam toj na kon na jàppaat bu dee gannaaw bam sangoo bu noppalee door a jàppaat noonu nag kon da koy def ñett ñett du ko def njàpp benn benn waaw kon bu dee njàpp moo xam ne gannaaw bu sangoo la ba noppi laal sawukaay bi ñu ne ko jàppaatal moom njàppam ñett ñett lay doon du doon njàpp benn benn te itam nag ci kaw rek mu yittewoo li waral njàpp waaye bu sangoo ba àggal noonu dafa li toj njàpp te jamono soxla wute julli soxla wute def lenn day bàyyi noonu rek bu soxlaa jàpp dem jàpp kon nga seetlu loolu buñ nee sangu na ma noppi laal na ab sawukaayam ñu ne ko baamul njàpp mi day fekk mu soxla njàpp rek ni ki bëgg a julli fi saasa mbaa bëgg a laal kaamil mbaa leneen mbaa boog mu bëgg a ameem njàpp waaye bu fekkee soxla wutum njàpp moom day bàyyi rek bu bëgg a jàpp dem jàpp te ngaa li moom dara sikku ci amul lu koy toj wa in masahu ndem laal na ko fipti daayi xuslihi ci tàmbali cangaayam la boo bax da an xasala ak gannaaw ba mu raxasee ma wax dixal wudu yi béréb bi njàpp ma minu ci moom fal yu mir ra kon na rombale bax da zalika ci gannaaw loolee bi yedday yi ci jaari loxoom xala mawaadixil wudu yi ci béréb bu njàpp ma ci béréb bi njàpp ma bil maa yi ca ndox ma xala maa ca la nga xam ne yem bax yi dana yell min zalika ci loolee wayen wii te mu ko yéene maanaam bu fekkee dafa doon sangu nag laata cangaay li àgg waaye fekk na moom mu weesu cëri njàpp ya ba noppi door a def luy toj njàpp mbaa boog mu nekk ci biir njàpp mi njàpp mi àggawul sax mu def luy toj njàpp yëpp yooyu moom day baamuwaat njàpp ma rek njàpp ma rek lay baamuwaat kon jàppal ne moom saa yu defee luy toj njàpp rek njàpp ma lay baamuwaat ni ki muy jàpp ba yàgg def lu koy toj mbaa bi muy sangu ba njàpp ba weesu njàpp mi def luy toj njàpp yëpp day baamuwaat rek jëmi njàpp ma ci kaw nag ni ma ko waxee woon léegi mu soxla njàpp mi ki bëgg a julli mbaa dara waaye bu fekkee soxlawul dara ci yooyu moom day àggale cangaayam rek saa yu bëggee jàpp na door a jàpp baabu li ab buntu la fii man ca ka nga xam ne la may jit amut alma a ndox wa sifati tayamu mi ak melow tiim te bëgg a wax nag mbirum tiim ndax bu fekkee kooku mënta jàpp mënta sangu tiimu fay sës kon nag mu wax tiim ak la koy waral at tayam mu tiim yajibu dana war li xadamit maa ngir ñàkk ndox fi safari ci tukki baatu fi safari mën naa bañ a ñëw ndax moom ñàkk tukki ci yam ñàkk ndoxam bu amee rek moom moo xam ci tukki la moo xam ci tukki rek tii mu fay sës isa ya isandeem naagu na añ yeji defoo mu am ko fi waxtu yi waxtu ci waxtu wa ne bu fekkee da nga amul ndox bi waxtu yi jotee te yaakaaroo ko am ba kere waxtu yi jeex kon na nga caa naagu kon sa farata mooy tiim say boo tiim fi saasay saasa jëru yeexee waxal yejibu amaana mu war mbaa nga ne baraana mu war sax maxawu joodi yi ànd ak amul ndox isa lam yaqatin dem attanut xalaa masihi ci laalam fii safarin moo xam ci tukki la aw xadarin wala ci teew li maradin ngir tawat maanihin ji aji talee laal ndox aw maridin wala aji tawat yàq diru joj dana attan xalaa masihi ci laalam moom ndox ma wala yajidu te du am man koo xam ne yu naa wiluhoo dana ko jottali iyaahu moom ndox ma nee na nga gis ko am ndox ba noppi da nga gis ko am ndox ba noppi te du tee farata mooy tiim la koy waral mooy moo xam day tukki moo xam tukkiwut yàllaa ko teg jàngoro joo xam ne nanguwul ndox benn moo ko xam ci boppam mbaa docteur bu xam faj moo ko ko wax nga xam ne moom buy jëfandikoo ndox mi rek tawat dal ko joo xam dalu ko woon mbaa tawat ji ko daloon yéex a wér mbaa tawat ji ko daloon gën a metti yëpp kon day bàyyi ndox mi te tiim wala boog moom di tawat na tawat ji sax teewu koo mën a laal ndox waaye da koo amut te mënta jóg wuti ko fa mu toog mënu faa jóg wuti ndox mi te gisul kooku yët ba tey kooku ba tey farataam mooy tiim wa kazalika naka noonu musaafirun aji tukki yaqrubu joj dafa jege min hu ci moom almaaw ndox wa yem naa xoo te koy tere min hu ca ndox ma xaw fu lu soo sin ragal ay sàcc aw sibaaxin wala ay ndegment ndegment mooy rab yu fàdd ba tey nee na bu fekkee ne xam nañ ndox maa nga fee waaye daa ragal ne bu ci dee wuti ay sàcc sàcc alalam ba ay rab fàdd ko gaañ ko mu ne kon ba tey loolu moom ñàkk ndox ñëwee moom bu fekkee wóor na ko ne moom daañu sàcc alalam ba njortam ñaaw na ca lool ci bu wutee ca ndox ma ba am na rab yoo xam ne ñu ngi fi te mën nañu koo lor wóor na ko ne ba njortam dëgër na ca kon na bàyyi rek te tiim bu mu jéem a wuti ca ndox moomee wa ida ay xanante wóolu na al musaafiru aji tukki ja bi wujudil maa yi ci amul ndox fi waxtu ci waxtu wa ak xarakoon mu yeexe ila axiri yi ba ci mu jëm nga daa wax aji tukki rek waaye moom boo tukki wut ñooye moo waxtu wi jot wóor na ne moom da nga am ndox balaa waxtu wee jeex kon waxtu wi jot na amoom ndox bi muy door a jot waaye wóor na ne moom balaa waxtu wee jeex da nga amoom ndox kon dañoo sopp nga bañ a gaaw a julli te xaar ba ci mujj waxtu wa ndox ma nga wóolu woon bu fekkee sa njort naxu la nga am ndox moom nga daal di jàpp wala bu dee sangu nga daal koy jëfandikoo door a julli bu fekkee nag wóolu woon nga ko waaye ba nga demee ci mujj waxtu amoo ko nag nga door a tiim ndax wóolu gu ci dara mën naa am nga wóolu ko te du demee noona wa in ya i sax dem naagu na mindu ca ndox ma teyam ba ma mu tiim fii awwali ci njëlbeenam nga bu fekkee waxtu yi jot na amoo ndox te jàpp nga ne moom ba kere waxtu yi jeex doo fi am ndox amoo amoo benn yaakaar ci am ndox kon dañoo sopp nga tiim ci saasay saasa daal julli amul yeexe wa in lam yëkkut ndem nekkut indafoo fa moom min fu ca ndox ma xilmun benn xam-xam teyam ba ma kon mu tiim fii wasatihi ca diggam ba bu fekkee na ngay déng-déngi dana am ndox balaa waxtu yi jeex am duma am ndox sa xel dugg ca lenn dañoo bëgg dañoo sopp rek nga bàyyi ba waxtu wi xaaj bu waxtu wi xaajee te nga am ndox baax na boo amul ndox itam daal di tiim wa kazalika naka noonu in xaafa ndéem ragal na an laa yudrika mu bañ a jot almaa ndox ba fi waqti ci waxtu wa war a jaate mu yaakaar ay yudrika xaw mu jot ko fii ci moom ba tey bu fekkee ndox mi daa nekk sa kanam ngay dox xam nga ne mu birub sàngam ndox nga fa li ngeen naatuli kay mooy da nga ci àgg balaa waxtu wee jeex wala déet kooku tam noonu ngay def da ngay wéy rek ba waxtu wi xaaj bu waxtu wi xaajee te nga àgg ca ndox mooma nga jëfandikoo ko bu fekkee àggoo ci nga daal di tiim mooy itam moo kee nga weer su ñëwee moo digg waxtu walay xaar waman tayam ma ku tiim min haawulaay ci ñii suma asaaba topp mu jot alma ndox ma fil waqti ci waxtu wa bax da an sàllaa ci gannaaw ba mu jullee kon am na teqale daa mel day mel day mel da nga ne foofu fii ci tafsilun ak teqale ngi ci teqale bi mooy fa amal maridu daal aji tawat ja ëllësi ja nga xam ne lawee jit amut man koo xam ne yu naawilu ho dana ko jot mu iyaahu moom ndox ma fal yu idd na baamu wa kasaalika naka noonu alxaayif aji ragal ja min sibaahin ci ay ndegment wa nafiya ak lu mel ne ñoom wa kasaalika naka noonu almusaafir aji tukki ja ëllësi ja nga xam ne yaxaafut na ragal an laa yudrika mu bañ jot alma ndox ma fi waqti ci waxtu wa weer joote mu yaakaar an yudrika ho mu jot ko fii ca moom daa wax ne ñi ñu wax ko ci xam ne tiim nga ba julli gannaaw ba nga amum ndox da nga koy teqalee nii ñu la wax bu dee ku tawat ka nga xam ne mëntoon a wuti ndox ne ma mën na koo jëfandikoo kon gannaaw ba mu tiimee ba julli bu gisee ko jot li ndox kon daañu sopp mu jëfandikoo ndox ma te daal di baamu julli ga waaye nag a sopp rek lay doon kenn nga ko ba tey ka nga xam ne moo ragaloon ne birub sàngam am na ndox waaye bu fa dee wuti daañu sàcc alalam ba ay rab dana ko gaañ ba teewoon ko caa dem gannaaw ba bu amaatee jëmmi ndox mooma niki gannaaw ba. lam jortoon daa demewul noona mu far am jëmmi ndox mooma ci mën na ba julli waaye am na ndox mooma rek ñu sopp mu jëfandikoo ndox ma te baamu ba tey aju tukki ji nga xam ne ndox mi daa nekkoon ci kanamam bu doon nattali ba xam dana ci àgg balaa waxtu wee jeex wala déet ñu ne ko woon xaaral ba waxtu wi xaaj ba waxtu wa xaajee nag te àggu ca mu daal di tiim julli gannaaw ba laata waxtu wee jeex nag mu far àgg ca ndox ma ba tey kooku daañu sopp ci moom mu jëfandikoo ndox ma te baamu baamu yooyu yëpp nag sopp rek la. wala yu du du baamu xëy du xaw laa ñu dul ñii dafa wax ne ñii rek ñooy baamu loolu mu ne ñii rek la ñuy digal ñu baamu aaji woonaa seetaat ndax nee nañu ki nga xam ne daa naagu woon ne du am ndox bañ ko ne yow saye boo tiim gannaaw ba nag mu am jëmmi ndox moomee nga xam ne moom la naagu woon ne du ko am ba tey kon kooku des na ko digal mu baamu de sax bu fekkee ndox moom naagu woon du ko am ba tey noonee la wéy amu ko waaye meneen la amu bokkut ak mooma ba tey kon kenn du ko digal baamu mel ne dañ ne woon teen bi yàqu na mu naagu woon ne tey moom du am ndox mukk ci robinet yi mbaa lu bokk ci teen bi kon ba tax ko julli ci ak tiim gannaaw ba ci lu ko bett nag ab oto jaar fi rek may ko ndox kon mel na ne jëmmi ndox ma nga xam ne moom la naagu woon amu ko beneen la am kon kooku du baam waaye gannaaw ba nag fekkoon ne jëmmi teen ba moo baax robinet yi xel yi mu daal di am ndox su boobaa kon des na ko digal mu baamu ba tey koo xam ne doon na sax seet ndox xëy na farlu na ca it sàgganu ca waaye gannaaw ba ba mu tiimee ba julli ba noppi dafa fekk ndox ci wetam mbaa ci wetu ay bagaasam ba tey kooku na baamu ndax day mel ne rek farlu woon na waaye rek xaw naa gàttañ lu tuuti ndax ndegam kooku day mel ne xaw naa gàttañ lu ndax ndegam gannaaw bu mu jullee bu noppi la gis ndox mu nekk ci wetam xëy na su farlu woon lool lool rek ak yëgadeem la waaye kon bu farlu woon lool lool gis ndox mooma wala sax mu amoon ndox fàtte ko ne man daal aw moom ndox gannaaw ba nag ba mu tiimee ba julli mu fàttaliku ne moom kat amoon nam ndox kooku itam na baamu moo tax kon ñu waxi ni rek ñi rek ay baamu nga seetluwaale ci ñi ñu leeral léegi léegi wala yu sal yi du julli salaatay ni yaari julli bi tayammumin ci ab tiim waaxin bu di benn min hawulaay ci ñi illa maridun dara aji tawat laa yaqatiru jóg di attan xalaa masilmaay ci laal ndox li dara di ngir lor bi gis mi jóg nekk na ci yaramam mu xiimin ji aji sax waxat xila waxees na sax te waxat xila jooju moo dëgër yetta yem ma mu dana tiim li kulli salaat ñeen képp julli daa wax ni képp koo xam ne farataam mooy tiim ci ñi mu la wax ñëpp du sañ a julli maanaam ci benn tiim bi lu may genn julli farata ba mu des na ko tawat ki nga xam ne mënta laal ndox moom nee na dana man bu tiimi benn tiim julli ci ñaari farata mbaa lu ko ëpp waaye loolu bul ko jàpp waxad xii la jéem wax muy nurul woyof moom rek moo dëgër takkal ne daal képp koo xam ne ñu farataam mooy tiim benn tiim bu ne benn farata la mën a julli waaye mënista tiim benn tiim moom boole ci ñaari farata mbaa yett waxadru ye netleef na xam maalikin jële ci maalik fii man ca ka nga xam ne dakkara fàttaliku na salawaatin ay julli an yu salliyaha mu julli leen bi tayam min ci ab tiim waaxin bu di benn boobu net li itam jërëtu faale dane am nañ jële ci maalik ne ku fàttaliku ay julli julli te fekk farataam doon tiim bu tiimee benn tiim mën caa julli yooyu yëpp waaye jooju wax ba tey dëgërut benn tiim bu ne julli ca benn farat rek la man jooju wax moo gën a wóor mu ñëw nag ci wax nit ñi tiimee wat dayam mu tiim bi saa yi di nekk na ci pàkk ab taahir bi aji laab waxoo moom pàkk bu laab nag maa mooy la nga xam ne dëxëra feeñ na xalaa wacil ardi ci kaw suuf min xaate bokk ci suuf boole ci min turaay bin ci suufus kese aw ramlin wala beeñ aw xijaaretin wala ay doj aw sabaxatin wala suufus xorom bokk na ci faratay tiim boo weesoo yéene nga boole ci tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalul tiim ca loolu nag mooy suuf ak lépp lu xeetoog suuf te loxo doomi aadama soppiwu ko moo xam day suufus kese moo xam de suufus beeñ moo xam day ay doj yoo xam day doj carrière mbaa doj dënnu yooyu nga xam ne loxo doomi aadama soppiwu ko mën nañ cee tiim waaye nag bu ko loxol doomi aadama soppee mel ne mool yi nga xam ne dañ koo mool ak ciment ciment doomi aadamaa ko soppi mbaa boog dojooyee ñu laso ko wala sax xeeti karoye yu mel noonu moom deesu ca mën a tiim jëmmi suuf ci boppam mbaa doj bu bàyyikoo ci suuf te loxol doomi aadama soppiku ko loola ca la ñu sañ a tiim bu ko loxol doomi aadama soppee rek moom deesu ca sañ a tiimati ñu la ñu tiime yàddale bu day dóor maanaam tey tey teg rek la bëgg a wax bi yedde yi ci yaari loxoom al ardu suuf sa fa in taallaqa ndéem aju na bi himaa ci ñoom ñaar shay'un dara nafadahuma mu fëgg leen nafdan ak fëgg xafiifan guy aju woyof da ngay jekki-jekki ne tegg say loxo ca la ngay tiime bu fekkee ba nga ne tegg say loxo nag daxam lu mel ne xaaxaam baabant bu ci taq nga xam ne boo ko raayaalee ci sa kanam mu gaañ la kon na nga xaw a fëgg ndànk say loxo ba loolu rot nga door a masaa ne bëgguñu sax nga faxa suuf si ngir bañ a taq loolu dañoo bëgg nga bàyyi ci suuf si su ma yam sama topp dana masaa bi himaa ci ñoom ñaar wàcc xoo kanamam nga kullahu léppam masan ak masa ko defee nag nga njëkk a masa kanam gi ba mu daj la nga daan raxas njàpp rek booy tiim moom ngay masa ci kanam gi summa yadribu topp dana dóoraat bi yedde yi ci yaari loxoom al arda suuf sa waaye dóoraat mooy tegaat loxoom ci suuf sa rek la bëgg a wax fa yam sama tam ñu masa yum naahu loxol ndeyjooram bi yusraahu ci loxob càmmooñam léegi masa loxo yi mooy des di nga weesu nga kanam gi da ngay jëkk raay loxob ndeyjoor door a raay loxob càmmooñ loxo bi ci nekk nag mooy raay moroom ma ndegam ndey ndeyjoor a jiitu nag ndax dañoo sopp lu am ndeyjoor ak càmmoñ faaw nga njëkk ndeyjoor kon loxob càmmoñ na njëkk a raay loxob ndeyjoor yéej xal day def asaabixa yadihi baaraami loxoom alinsra bay càmmoñ xala atraafi asaabihi yadihi ci cati baaraami loxoom alyum naa bay ndeyjoor su ma yu mirru topp dina rombale asaabixa